bismillahi arrahmani irrahim ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuuba xaada lawo lawo maxtaara lawo ci ñett téeméer bi ak ñeen fukk ak benn sëriñ tuuba xaada lawo lawo maxtaar lawo nee na ndax am moos tuuba bi naruñ ma woon a bàyyi waaye saa borom mi ma yabaloon moo ma wàññi wàññi mooy dëpp wala delloo si dañoo nanoon bu ñu mënu dara ci man duñu ma indiwaat ci réew mi ginnaaw bi denc góor yi amee mooy suul gi ñu ko suuloon dañu ma danneerlu mel ni ku ma mere mel ni ku ma fàttelu yàgg ba am bis ñu wax ni ginnaaw suul nañu ko faatuun nañu ko fital te bokkut ak fitalu talaata googee te mooy la muy wax wahabalil waahibu fi thulaasa ma axjalal ashrata wa thulaasa ba ñu wa woowee saa borom ni ma li nga fi war a toog jeex na ba ma waaxoo jëm fa ñu ma woowee sayyiduna jibril alayhi salam ni ma sa borom neena na daa bëgg sa digg ak tuba bi jeex tey mu ko kon na ma ak ñoom li ayi wuñu ma julli juróom gudi koro da leer nañ seen waxtu itam nax leen ñu defé ni ñi ngi ci ñeenti waxtu te booba ñi ngi ci ñetti waxtu ahlu badrin itam radiallahu taala hanum dañu leen da xelmatu ci man muy bàyyi xel ma suñu leena gis bis booba rek lañu leen mas gis bi ma toogee ba ñu wër ma ca la leen ahlu badrin feeñu radiallahu taala anum wër leen yor seeni jaasi mel ni xon woo xam ni daa bàyyikoo ci asamaan xon mooy aw rëdd lay doon ku ci ne sab bët mi ngi mel ni penkatab jant kenn ku nekk fa nga nekk xamoo yaa ngi ci guddi wala bëccëg njit la daal di ñëw ci man ni ma lii yawa ma ni ko waaw mu ni ma lu tax mu ni ko li nga bëggoon a def mu ne ma ndax man nga maa dimbale ba mu mucc ak ñi ma àndal ma delloo la réew ma nga jóge woon ma ne ko waaw mën naa ko mu ne ma boo ko defee danaa la delloo booy defar defar booy yàq-yàq ma ne ko man mësumaa yàq damay defar rek mu daal di bindante ak man tubaab lu mu la wax bu ko bindul génn na ca ma bind mu bind mu ni wuréet mel ni niir siw na sëriñ tubaa xaadaloo law maxtaarloo mas naa te sëriñ ma numbe radiallahu taala anu ci ndiarem te mu donon ku fonku bay mu teye ko ba nawet ba jeex tak ba bët wat ci suba sëriñ tubaa xaadaloo law waxtaaral maxtaaraloo woo ko mu ñew mu ni ko koko ahmadu mu ni ko waawaaw serigne bi ni ko yalla def na bi ñaari ci bu momu mu def bi te mooy taw bi ak man mi. xana da xamul ni man am ceebola siiw na rabbiya jaadali bima lam yaxturi bibaali saxsin muxjilan lilmatari damani allahu ila sahaba wa xaadali ma axjala saxaaba sëriñ bi daa bëgg ak sellal ci taalibe yi bëgg na itam lépp lu ñuy def nuy fexe jëmmam rek tax loolu nag du lu ñuy wax lu ñuy fas ci suñuy xol lay doon di ko taqoo fim mu ne àgg nañu ci jamono joo xam ni sellaan ngir jëmmi yàlla jafe na lool boo xoolee sëriñ ma numbe radiallahu taala anhu bi ko sëriñ bi téyee da koy xamal ni kenn wërta sukkandikoo lenn ludul dul yàlla subhanahu wa taala bu loolu amee ba noppi nga door a tàmbalee sabablu wa alallahi falyatawakkalil muminuun antum tasrahunahu am nahnu zaari'uun ma kaana lakum an tumbitoo shajaraha sadaqallahu alazim wallahu alam sëriñ tuuba xaadaloo la maxtaaloo nee na saa boroom nos na mbindeef yi yépp teg ci sama loxo kuy bañ ka xëccu dangay mboroxaan mooy nosu tekkan bu xët moom mboroxaan ku gàntu ba sa bakkan xëtit ma yóbbu nos bi jox sa boroom ni ko yaama ko joxoon wér na zimaamu wara asri ladallaahi fi yaddi. wa ma rumtuhu man malikin xaada bil ani lu mel ni baati olof yooyu yow miy déglu léeg-léeg ñu wax ci boo xam ni boo ko déggaatee te na ko déggee yaakaar nga ni la loolu it ba tey maanaam ko xamee ci olof bu wér bi rek nona la ndax baati olof yi léeg-léeg day xaw a nuroo lool te wuute waaye mboroxaan wala poroxaan rek ñu ñëw ci bari nettali muy ñaar téeméer ak ñeen fukk ak ñeent sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaaraloo nee na ku ñuy jur ak kuy jur lépp maa yor seen àtte serigne mor kumba kan radiallahu taala anhu bi muy ñëw ci sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaaraloo mi ngi ànd ak sëriñ balla faali radiallahu taala anhu booba serigne bi mi ngi jolof serigne balla faali radiallahu taala anhu ni ko ci yow la jëm si woon maa ko wan yoon wi sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaaraloo ni ko noo tudd mu ni ko moor kumba kan sëriñ bi ni ko foo bàyyi ko mu ni ko siin lay kan laa bàyyi ko sëriñ bi ni ko loo doon liggéeye mu ko bëreeg bay sëriñ bi ni ko mbër nga ko mbër waa mooy mbër mu ràññi ko ku ma songool daan la am na fa nekk di gas ak ëkk di ko déjji mu yàgg ca lool sëriñ moo radiallahu taala anu di ko ba mu yàgg mu def dem ci ëkk ga buddi ko gaddu ko ci càmmooñam naan may waada maadim kelang mooy ku dëgër xayna. def noonu ba ci sëriñ tuubaa xaadaloo law maxtaloo mu ni ko becc sëriñ bi wàcce kaalaam ree ni ko wax nga dëgg de mbër nga ba mu fa nekk ba ngan nga mat sëriñ bi ni ko kaay dellu kajoor te bu dee woo demee ren moom na nga bàyyi bëre te bul bayati yaar yooyu yi nga fi indi bu ci defati dara werna sëriñ bi boo gisee mu koy bàyyiloo mbay dama yaakaar ni sellal pas-pas yi la ciy jublu ndax kuy bay ku nekk am na lu ko tax di bay fi mu ne bu ko bàyyee ci ndigalu sëriñ bi ba sëriñ bi xam ni bàyyi na ko bu wér mën na ko koo digalaat bu boobaa nekkiinu ndigal lay doon xaddul iraadati bi xawli saada tarkul muridi ma alayhi aada ثم إلى المعتاد قبل وصوله كالارتداد تكون مريدا ثم فيك إرادة فإن لم ترد شيئا فأنت مريد لا تقصدن غير رب الطول في كل سعي مع كل خول لكن ذا طريقه مطول على العلي سالكه معول لا يقدر المكسال والمبهرج عليه عوض لا تراك حرج ñooñu ci njàngalem Serigne Touba xaada lahu allahu maxtaar lahu mas naa wax Mouhamadou daga na Dagana radiallahu taala anu na ngeen def mu ni ko tuwaar kàlla dëkk bépp ñi ngi sant ceew Serigne Touba xaada lahu allahu maxtaar lahu ni ko li ma saa borom jox ci may bu soppi woon jamono jépp ay mindeef. yu mel ni yéen ñii te ñépp def ni yéen ñu dëgmal ma danaa leen ci defara defar ba kenn ku nekk fàtte fa nga jóge woon ak ka nga àndaloon ba nga fi ñëw xam ngeen li ma leen defal nu mu demee ci may yi ma saa borom may mi ngi mel ni wala ablal pusa bi koy ñaw mooy pusam ngaax mu ni ko mi ngi mel ni pusam ngaax bu yendu géej ba ngoon jot am mool génne ko maam ndox ga pusa ba lacce muy xëcc ba mu lacce ca ndox ma laa leen wistan leen jubluwaa daal ndox ga puso ba xëcc ca ndox ma laa leen wistan wér na lii ak soññu la lool ci topp sëriñ bi ak sopp ko ndax xéewal yi mi ngi mel ni kuy gas ci suuf su dëgër am ku lay sottil ndox ngir nga mën a gas boo dee gas dangay dem ba jot ndox ma te ndox moomee du jeex mukk wa ma indallaahi baax boo dee naan li mu lay sottil dangay gën a sonn di gën a diis di gën a yeex wallahu aalam ñoo ci njàngalem sëriñ tuuba xaadalaw law maxtaar loo sëriñ tuuba xaadalaw law maxtaar loo mas naa wax dama soxla aw ngara mooy feggu wala li ub téere bi ci ñaari wet yi sëriñ muusa kara di law taala xanu moo ko andi sëriñ bi bind la muy bind siiw na daa jël aw kayit teg ca door a bind la muy bind wala aw alam sëriñ tuuba xaadalaw law maxtaar loo mas naa ànd ak sëriñ aadama géy radiallahu taala xanu jóge mbàkke kajoor jëm ndar di jëndi ay téere ba ñu ñëwee ba ci yoon wi sëriñ bi ni ko dama bëgg nga jaayanteeg man danga may jox sa bopp mu daal di jébbalu ca guddi googee sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo ni ko yoral sa kurus tey wax lii ba guddi gi xaajee mu yuuxu sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo ni ko loo gis mu ni ko ndar ma nga ne sëriñ bi ni ko penku bi mu ni ko bu ma lambee daj makka sëriñ bi ni ko saalum mu ni ko njaanee nga ne ak dex la ca ginnaaw kawru sëriñ bi ni ko soowu mu ni ko ndakaaru mi ngi nii sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaaloo ni ko asamaan si mu ne ko gis naa yeneen nit ci kaw sëriñ bi ni ko suuf si mu ni ko gis naa yeneen nit ci suuf sëriñ bi ni ko àdduna ak àllaaxira ngoogu boo nu jàppalee ci lii nu bëgg fii ba ca say set dañu leen di topp siiw na li tàmbalee boo nu jàppale wax jooji li tàmbalee foofu ba mu jeex maa ko binne noonu waaye yeneen baat la andi wolof bi moo wuute waaye jublu gi genn la wala u alam ñu ci ñàngalam sëriñ tuuba ci ñaat téeméer ba ak ñeen fukk ak juróom ñeent sëriñ tuuba xaadalaw law maxtaaloo mas naa wax sëriñ daam abdurahmaan loo radiallahu taala anhu demal wuyu kila woo mu ni ko kila bind bind kooka moo ma booleek yow siiw na sëriñ tuuba xaada lahu lahu maxtaloo nee na julli juróom woor weeru koor joxe asaka añ màkka ginnaaw gëm yàlla saa boroom da koo sant jaam yépp boo amee ab sëriñ bu ko dee def dee ko def bu ko dul def dee ko def lu mel ni jàng alxuraan ak naafile yépp dee ko ci laaj ndigal moo gan wér na waxin woote na lool ak waxinu sëriñ bi waaye noonu la ko binde moo tax wér na lool su ko defee ñi nettali dañuy wuute ay waxin am na nag ñuy mën a jaar ca na mu ko waxe woon wala alam ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuuba ci ñaat téeméer bi ak juróom fukk ak benn sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaar loo am na ku mu daan jàngaloo alxuraan naa ko doomi masayeer njaay ji jàngal moodu mbàkkele tuddoon mu mel ni kuy bañ sëriñ bi fob dara jox ko mu door a jàng wér na sëriñ bi da koo bëggoon lool mu neexoon baat lool wala aw alam sëriñ masayeer njaay radiallahu taala anu bi mu jébbaloo ci sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawo da koo téye ab diir bàyyi ko mu daal di dellu ba benn bis sëriñ bi woolu ko mu ñëw mu ni ko sa mbokk yi dañoo wax ni ba nga ñëwagul fii alhamdulilahi rabbil alamin nga daan ubbi ko ci ak julli bi nga fi jugee di ubbi ko bismillahi rahmaani rahim loo ci dégg mu ne ko ci yow laa ko degge. fekk na am na ca mbokkam yooyee ñu fa toog sëriñ tubaa xaadaloo laa maxtaaloo ni leen julli defarawut ci alhamdulillahi rabbil alamin yàquwut ci bismillahi rahmaani rahim daa di ni bismillahi rahmaani rahim ku mu ñu ni ko yàlla mu ni alhamdulillahi rabbil alamina kumu ñu ni ko yàlla mu ni arrahmani rahimi kumu ñu ni ko yàlla mu ni maliki yawmi diini kumu ñu ni ko yàlla mu ni hakasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu foofu lay defaroo fa lay yàqoo boo nee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu malaaka yi koy jël rot nañu bu ñu seetee iyyaka na'budu ji di dëgg ci yow waaye yaaka nastahinu di dëgg ci yow ñu fob julli gi yóbbu boo yeboo sëlmal bu du dëgg ci yow ñu bàyyi laak sag julli wér na boo yeboo sëlmal noo nii la ñëwee ci nettali bi li tax ma koy sewal dama njott ni làmmiñu kiy nettali la wala alam fi mu ne danañu nekk di topp loo xam ni amul benn njariñ ci ci nun loolu la sëriñ bi bëgg nu bàyyi ko tey góor góorlu ci jublu yàlla subhaanahu wa kenn wërta xiibal kenn ci loo xam ni dañuy wax ni lu ñu sopp la wala sunna la wala lu ñu sib la wallahu alam ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuba xaada lahu allahu maxtaara lahu sëriñ tuba xaada lahu allahu maxtaara lahu daana def ku mokkal jaalibatul maraaxi bi mu jox la mbubbum boppam siiw na loolu dañuy soññ ci mokkal ko bu dul dara itam loolu muy ñaanal ku ko mokkal ci mujj gi war naa tax murit bu nekk di ko fexe mokkal ba tey loolu ak soññ la ci bépp murit muy hittewoo xasiday sëriñ bi képp ku ko man ngay fexe am li mu bind lépp ndax li sëriñ bi bind te mu feeñ moo gën a yomb tawax ak kër ba mu àgg te sëriñ bi itam wax na ni dañuy dimbalee ci bàmmeel at yi nag am na téere bu may gis bu ñuy wax jaamiul asraari wal anwaar ñu bari di ma laaj sëriñ bi moo ko taarif wala déet bi ma ko xoolee itam li ma gën a yaakaar moo di defu ko laaj naa itam kilifa yeneen yu am xam-xam tey gëstu ñu xamal ma ni li ñu gën a yaakaar moo di defu ko su ko defee negam li may wax lépp ci samam xel laa koy xoole ginnaaw waxi kilifa yi lii mooy li ma ci xalaat téere bi réy na réy goo xam ni waroon naa siiw ci mag ñi ni muqaddamatul kubra siiwe ak muqaddamatul xinma. te itam at yi la tàmbulee gis ñu koy bind muy daje ci ay xalima waaye bu njëkkoon ci ay bik rek laa daa gis ñu koy bind amul itam ci benn diiwaan ci diiwaan yi sëriñ abdullah doon dajale radiallahu taala anu ak sëriñ Chouaïb radiallahu taala anu waxee nu itam nuruwul ak waxeenu sëriñ bi xaada la wala maxtaar loo ba am na mag mu ma doon wax ni waxin sëriñ abdul xaadir jaylaani radiallahu taala anu la koy nuru bokk na ci waxinu sëriñ bi lu muy tàmbali lu mu tuuti tuuti da koy waajal ba nga xam ni mi ngi bëgg a tàmbali dara fi mu ne téere bi amul benn tàmbalikaay daa mel ni daa jekki-jekki tàmbali loolu mooy li ma ci xam di ko leeral samay mbokki taalube ngir sëriñ bi mbooleem li ñuy wax ci téere bi ci kimaan ak i ak i leer lu am la waaye nun li nu gën a hitteel mooy ndax ci ab dënnam la jóge wala déet ndax ay leer ak i kiimaan ak i lu mu rëy rëy sëriñ bi moonu ko gënal ak i yefam wallahu aalam ñu ñëw ci njàngalem sëriñ Tuuba ci ñaar téeméer bi ak juróom fukk ak ñeent sëriñ Tuuba xaadale wallahu maxtaarloo bi muy nekk jolaf daana wax bu leen naan ndoxum kese te boolewuleen ko ak dara ndoxum kese day tàyyeloo te ku tàyyel doo mën a jaamu yàlla te ku jaamuwul yàlla doo dem àjjana wér na sëriñ soxaybu radiallahu taala anu mas naa ñëw ci sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawo mu ni nañu ko wat daa mel ni daa saalañ saalañ mooy sëq kawaruk bopp walaw alam ñu ñëw ci njàngam sëriñ tuuba sëriñ bàll bu sa radiallahu taala anu mas naa ñëw ci sëriñ tuubaa xaadala wala maxtaarawo ni assalaamu aleykum sëriñ bi ni wa aleykumu salaam kooku mu ni ko habibullahi sëriñ bi ni ko loo doon dox mu ni ko sama cër laay si sëriñ bi jox ko këllub tàndarma ni ko ruqiyatu mbàkke radiallahu taala anha am na fi cër wér na